eh Karim Joal a ngi noonu la ilaha eh, baa ngi noonu de la entrée de Karim Joal waaw baa ngi noonu baa ngi noonu waaw waaw dere gaal nañ ko e tere gal gi namoon na Karim Joal ale ba firana me ndun waly mi an jangi mbaal na awa joobe ce Karim Joal a ngi noonu nee naa leen tere gal gi namoon na ko amateur yi namoon nañ ko supporteur yi namoon nañ ko samp na béjjenu Kooba fii ci terrain Gaal aca Wos Jordan a ngi noonu Wos Jordan a ngi noonu tàllal na loxo ya waaw waaw laaj birig ba eh le poulet Jordan a ngi nee naa leen laamu bi tey di yomb ale bafira naame ndur wali miñante jagi mbal na awa joobe waaw waaw kareme nge noonu yee Pape Ngoli bu suma ngi noonu di waaja dugusi Jelba Tudo Karim Bakul boobu neex la